في طاقة أو صولة ضد التواني إن ربي قد حباني أن أصمى بالتجان نحن أولاد التجان من أبوات المعاني ولنا منه نصيب فوق القلب شيء قاده نحو المغاني يا أبا العباس يا من كنزه كنز الأمان نحن أولاد تيجاني من أبوات المعاني ولنا منه نصيب فوق غير جاءنا خير عميم هبة دون امتحان أنت كالغيث إذا ما صب يجري بامتنان نحن أولاد تجاني من أبو فوق غايات الأمان ملأ الوديان حتى أصبحت زي الجنان لم يغادر أي شيء من بحور وأوان نحن أولاد تجار نحن أولاد التجان من أبوات المعاني ولنا منه نصيب فوق غايات الأمان يعني لسوني كلفة يوم نيوم نيوي سوني كلفة ديني تامبوليكو تسيري منتخام باكي Cheikh Mouhamadul basiir ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéeral ko lool di jaar ci Baye Serigne Bousso mi nga xamante ni ni moom mooy kilifa tund wi ci yoonu sëriñ tubaab yi moom tamit ñu ko ci ñaanal suñu baram guddal fanam wéeral cëram lu baree bare noonu la ñuy jaar di jaar kilifa yi dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn tàmbulee ko ci suñu waajur bopp yi muy Baye Samba Sow moo du Sow. Baye Talla ak mboolem kilifa goo xam mi ngi ci dëkk bi te tudd ñu tur bi rek na nga xam ne ñu ngi koy ziar waaye mboolem kilifa goo xam mi ngi ci dëkk bi ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziar ñu ngi koy baalaax di ko baalaax ah, naka noonu tamit ñu la ñuy nuyoo kilifa yi nga xam ñoom lañ nekkandoor ci baas bi di ci teg jiital Baye Baye Malick Dieng Kër Demba moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax di ko. baalu àq te di ko baal àq di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér moom tamit muy borom dëkku kër Demba Anta ah, ñu koy ñaanal bu baax suñu borom yan bi nga xamante ni nii moom la teg ci kawam yal na suñu borom wayfal ko toll waaye guddal ci fanam wéral ci cëram ba lépp lu ci naal te yéen ko ci liggéey suñu borom may ko ci kattan ba àggale ko ci darajay Cheikhul Khadim kilifa yi nga xam ñoom lañ toogandool ci jataay bi di ci. jiital Serigne mbay Anne mi nga xam moo njëkkoon a jël kàddu di rafetlu kàddoom ngir njëkk a jaar ci waxtaan wi nga xam fàttale nañu ko ñun ndaw ñi nga xamante ni ni ñun ñoo nekk ci dëkk bi te di topp cosaanu dëkk bi mu wax ci ay wax yu am solo yoo xamante ni ni ñun xamuñu ko woon comme Serigne Gueye mi nga xam moom lañu fekkoon ni mu ko waxe woon léegi rek ni wax na ci loo xamante ni ni ñi ko xam ni fekk wuñu woon dëkk bi ak sosoom ak mam Ali mi nga xam moo sosoon dekk bi wax wi nim ko leerale ñun xamé nañ ci loo xam xamuñ ko won dina tax li ñu moom ñu gën ko japp gën ko téye kon ñi ngi lay ñaanal yow tamit bu baax sambu suñ borom guddal saw fan wëral say cër ba lepp lo xam nangoo ko ci sa xam-xam bi suñ borom may la lu ci kawé sa ndjor barkeb Seexul khadim ñi ngi lay ñaanal bu baax sambu nga gudd fan and ak wër ak wérle ak mbolém sa njabot ak mbolém ñi nga xam tini ñoo la jaboote barke Serigne Saliou ginnaaw loolu tamit ñuy nuyu kilifa yi nga xam ñoom lañ toogal fii di Serigne Souleymane Gningue moom tamit mu nekk koo xamante ni ni kenn dootu ko présenté ci bis bi ndax mu nekk koo xamante ni ni ginnaaw yàlla comme niñ ko waxee woon daaw rek suñ borom mooy ñu fekkewaat ko bu demee ba agsi fii ginnaaw yàlla moom la ndax moom moo jógoon ñi day dikk fii ngir def ay conférence di ko def ba yàlla def bis bi ak si fii kon lépp lu ci mën a xew rek dañ ko ciy sant di ko ñaanal moom tamit comme niñ ko ñaanalee ñëpp suñu borom guddal fanam wéeral cëram waaye tamit suñu borom sàmm ko te aar ko ba xam-xamam lim ci yéenee liggéeyal yal na ko suñu borom mottali ci barkeb Serigne Saliou ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax ak ñim àndal ñëpp. naka noonu tamit dinañ dugal ay quelques présentation yoo xam te ne ay invité la ñu woon invité d'honneur ko defee dañuy lim tour rek ñu daal di dugg ci biir jataay bi. àggale liggéey bi euh, su ko defee xam naa ni ñu ci bari teewuñu waaye ñi ci jot a teew rek su dee dinañ am kàdduñ ci sànni ñu sànni ko ci balaa Serigne Souleymane a tàmbali bu ko defee ndax nit ñi gën a agsi loolu dina tax lim bëgg yaatal ci xam-xamam dina tax mu gën a mën a yaatu bu ko defee ku ci mel ni Serigne Alhaji Fall Kees moom tamit bokkoon na ci ñi nga xam te ni ñoom lañ joxoon ci invité d'honneur yi ñu bokkoon ci ñi nga xam te ni ñoom tamit invité nañ ko. sëriñ Babacar Ndiaye tamit Cenaba moom tamit ci la sëriñ Mor Sow Dieye Abdou kër Abdou Dieye moom tamit ci la sëriñ Bàcc Sis kër Madaaro Ñang moom tamit ci la waa daairatu kër Demba Anta muy mustasidina wal mustasidaat di suñuy ndaw ñoo xam te ni ñun ñoo bokk génération bokk lu ñuy dund ñoom tamit ci lañu soxna Ndey Fari Fall Thiès monsieur le maire Talla Diagne ci la bokk sëriñ galo ties ci la bokk Serigne Muxtaar Boussa mom tamit mom moy conclure waxtan wi nga xam mom lañ ci waxtan xamna bu àggsee incha allah dina ko def ak Serigne Moussa Fall Cantaak Mas Fall Cantaakun mom tamit ci la bokk mom tamit ñukoy ziar bu baax di ndaw lo xam nekkon na ci dëkk bi ah bokkoon ci ñi nga xam te ni ñoo bokkoon di taxawu dëkk bi kon bu fi jégué ñu boole ko ci bis yu melni lolu kon wax dëgg yàlla am lu jar a la kon ñi ci sante bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxtaanu tey bi li mu doon mooy mooy mooy àdduna ci li ma ko waxee ci li ma ko mën a waxee mooy àdduna te moom laa wax waa bi dama xamul nag waa bi añ bi da leen a jàpp wala tàngoor bi moo leen jàpp wala neexaayu gàmm gi مولين جاب بطخ سمني هذا مولين جاب فاي السلام عليكم ورحمة الله إذن يا أخي فاي نيو نيو تي ما نام يلا دفع دفع خم نمو بند ما يدوم عادم أي مرة من يدوم عادم بني تخم بني كوي فاتل لك وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين سيذكر من يخشى mu ni dee leen fàttalante seen biir parce que fàttalante moo leen di jëriñ dama nuyoo baat bi nga xamante ni mooy baatu jàmm te baat boobu dinaa ci ñëw léegi mu am benn taxawaay bu mu am ci lislaam mais bi ma nuyoo baay badat dafa mel ni baas bi la daloon imam ba dama ragal ne da leen a dal ci baatu jàmm muy asalaamualeykum imam bi day jiite te pénc mi muy jiite <laughs> dama am benn dof boo xamante dof bi dof bi asalaamaaleykum lay bañ maanaam kii mu dul sax moo moo imaam bi day jiite te penc bi muy jiite penc bi rek mais moom baatu asalaamaaleykum ku ko wax moom am nga problème bu rëy rëy imaam di julli ba am ñeenti raakaar ni attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi xanaa boo taayaa ba taay jeex السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أه؟ وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بوجه خلي ستاي نيبا مي يوم تلقى ستاي عبده ورسوله لكن لا مورس لا روح امام نسيد يوم تلقى doo gën a xew taxaw di ko xool. wala yéen gaa yi ci ginnaaw di toog di di. di ak dof dof moom boo nee salaamaaleykum moom tey nga def mu ne xew di xool imam ñàq tiim ko nag imam taaya na ba taaya bi mat na te julli gaa ngi bëgg yàgg. imam jékki-jékki daan ni bonjour wa wa barakaatu. léegi nag ñuy laaj ndax julli googu dina wala déet ndax moo bi mu utilisé moo tax moo bi moo bi mu utilisé maanaam asalaamaaleykum jim jim wax ci tubaab loolu mooy problème bi baat boobu yàlla da ko fonk moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci suñu sang Seydina Muhammad li ñuy wax daaru yëpp nuyoo bi nag dañ koy teg ci loxo suñu baay baay Cheikh Samb moom yàlla dogal mu ayee wattu ci njaboot gi yàlla yàlla guddal fanam te mooy ko wér di nuyu tam waa association bi nga xamante ni ñoo fi nekk association bi comme ni ko kilifa gi toogee doon moo ci nekk dafa nekk association boo xamante ni bu yaakaaru la ndax seen engagement jeune uni bi nga xamante ni moom la développé léegi nga xamante ni jàppante bi ak bëggante gi ak jàmm ji nekk seen biir loolu moom moo tax ñu def seen choix ci ñu waxtaanal leen ci jàmm muy salaam tubaab di ko wax la jàmm jooju ku ko amul mënoo mënoo dox dara ba mu sotti ndax jàmm ci la lépp xaj da ngay dégg wolof bay bada ci la lépp xaj kon lu jàmm amul rek fitna am na ci pour ñu définir jàmm ma huwa salaam lan mooy jàmm baat boobu muy baatub jàmm boo jàngatee alquran baat bii di baatu salaam ñëw na ci ñaar euh, cinquante fois alquranul karim baatub salaam ñëw na ci cinquante fois boo ko àddatee dafa lay jox trois cent soixante onze ci poids boo xamante ni moom la baat bi di di di tënk ci lim yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi ko sama boroom subhaanahu wa taala yónnee am na yeneen diine yoo xamante ni amoon nañu waaye bi mu ñëwee baat bi waa daaru tàmm pour ñu waxtaanal leen ci tey baat boobu la suñu borom jël diine jàmm mooy mooy al islaam bu nee islaam mooy salaam mooy jàmm yàlla ni inna diina inda allahi islaam diine ji nga xamante ni suñu borom reconnaître na ko nga xamante ni dañ naan diine ji ñuy dund suñu borom diine jooju mooy doon mooy doon diine mooy diinul islaamiya yàlla ni wa man غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاشرين يلا نينا دين دين خمنتني لما كنت تنك تدي كو دين جامو موي الاسلام كيب كو خمنتني جابو كو مويو دين دين جامو مو بن فك نينا الله يوم القيامة في الآخرة من الخاشرين يلا نتي على يلا كنت islam képp fi fekk ñu dugg ci bok ci lay doon yalla waxat alquran yent yalla Muhammad def discours bo xamanteni depuis bi ko Muhammad defé ak tay alquran wala dinul islam yokul wàññeekuwul bi mana dinul islam depuis yent yalla Muhammad waxe mo bi ak suñu jëm di ñu tok fi ci daru sambu di wax l'islam yokkuwul benn waaye wàññeekuwaatul ben ba yonent bi moo taxaw des def discours am ne al yawma bis ni ki tey jii akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati waaye wa raditu lakum islaama diinan yonent nee na sama borom wax na ci seen alquran gi nga xam ne ci ngeen tënk mu ne bés ni ki tey jii fii ci madi fii ci makkatul mukarrama ak madinatul munawwara ak fépp foo xamante ni ay jullit ña ngi fay daje bés ni ki tey diine lislaam mat na amatul lu ñuy yokk amatul lu ñuy wàññi biibul bi tëj nañ ko borom bi leen bind nag muy yàlla ni ñu moom ñun ñëpp raditu lakum islaamu diina ba diine yëpp dajaloo diine yëpp dajaloo ku nekk dóor wut yonte wut suñu borom subhanahu wa yàlla nee na tànn naa diine lislaam mu nekk diine ji nga xamante ni gërëm naa ko kon bu fekkee waa daaru dañoo ñëw ni tey kat imaam dañoo bëgg ko ñu waxtaanal te li ñu tàmm pour waxtaan ko mooy diinul islaamiya ñun loolu dañ ci am mbégte bu rëy rëy fii ñu nag ci jamono sama borom subhanahu wa taala day wax ci alquran suratul anam mu ni wa iza jaaka alladina yuminuuna bi ayatina faqul salaamu aleykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma yàlla nee man Suleymaan bu ma ñëwee daaru nañ ma dalal ci lan ci baatub jàmm ak salaam boo déggee ñu naan Sénégal réewum teraanga la parce que Sénégal dafa nekk réewum jàmm tey réew yi ngay dem ci àdduna bi seen dëkku maam nañu ni fitna mi ngi commencé di yeewu ci àdduna bi te fitna boobu kenn mënu cee mucc ci ñun ndax fitna kan yàlla moo ko wax ci alquran mu ni wa taqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xassa wa alamu anna allaha sadidun iqab yàlla ko wax yàlla nee na da ngeen ragal fitna ndax nee na fitna ay la boo xamante ni du yem kon yaakaar naa wolof yu bare bare bare dégg nañ baat boobu ay du yem ci bopp borom dafa am ben maire maire bi dafa màgget nekk ci benn dëkk nekk ci benn néegu ñax ci biir dëkk bi pour te dire rek pour nga xam ni li wax ni wattaqu fitnatan tusibanna alladina zalamu minkum xaasa amu an tabiqa muy ay du yem ci bopp borom wala tënkee ko noonu mer bi bi mu toogee di jaaru mi ngi tiim ay xalam ci biir néeg bi am benn xale di jékki-jékki xool néegu ñax mer bi nekk ca kaw puj ba bi mu xoolee kaw puj bi gis benn sindax ak benn unku xeex foofu na xale yi am na lu ñu rab xamante ko que léegi néeg yi daan am bariwul boo demee cana ba bareetu fa daaru sàmb gi bu fi amee bareetul kër dembanta noonu boo demee bagaaj tamit bareetu fa dëkk yu bari bareetu fa loolu nag ñaareel bi ñu ñu dalal gan ñooñu ndax xale yi nañ may man ñi rek ñu toog xale yi tuuti espace bi la espace bi la waaw. ñu fekkoon ñu waxtaan ci thème bi nga xamante ni moom la xale yi tànn mooy thème jàmm jàmm nag àdduna moo ko laaj fi mu toll nii. yàlla mu wax ci alquran ni wallahu ila daari wa yahdi man yasha ila yàlla nee na man maa woo nit ñi ci ñëw wuy si ma ci jàmm man yàlla xanaa nag derkaat bu toll suñu borom yàlla Souleymane waxul de Xaalim Sarr waxul Baye Bara Fall waxul keneen waxul yàlla mooy wax yàlla moo ne man yàlla yadoo man maa leen woo yéen nit ñi ila daari salaam ngeen ñu wuy si ci këru jàmm te bi daaru sàmb la tudd kon yalla bu ñu woowee ci jàmm ñepp wala ala kulli xaal war nañoo mën a wuyu suñu borom ci jàmm mo ngi ni fitna ay la ta ay du yam ci bop borom alquran mo ni wa taqu fitnatan te innama amwalukum wa awladukum fitnatun واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قصة واعlamu anna allaha sadidul iqab yàlla ko wax meer bi ci dëkk bi la nekk toog ci suufu néegu ñax bi di jaaroo xale bi ñëw ni ko maam si ndax bi ak unk bi ñu ngi xeex ci kaw puj bi meer bi ni sama yoon nekku ci xale bi daw dem ci fas bi ni ko fas unk bi ak si ndax bi ñu ngi xeex ci kaw puj bi fas bi ne ko sama yéen nekku ci xale bi daw ci nag bi ne ko nag fa kii bi unku euh, bi ak sa ndax bi ñu ngi nee di xeex ci kaw puj bi nag bi ne ko sama yéen nekku ci ñu toog tuuti xale bi daal di jaaxle dem toog croiser le bras si ndax bi ak unku bi ndekete bu ñuy xeex jékki-jékki nañ daal di wadd ci biir néeg bi bi ñu waddee ci biir néeg bi rek daal di këpp xal yi ci meer bi bu ñu ko këppee xal yi laal ñax bi ci néegu ñax bi bu ko laalee rek néeg ñax bi daal di booy di tàkk meer bi di tàkk ci biir ba tàkk ba jeex bi meer bi tàkkee ba jeex comme meer bi faat na am benn waaye ci dëkk bi bi mu ñëwee tiit fekk fas baa ngi ñuy yeel rek mu yeewi fas bi rek war ko rëppatal dugg ci àll bi tool bu mu dem meer diw lakk na ba jeex na mer diw lak na ba jeex xam nga bu njëkk mag ñi loolu lañ daan tagge am naa xale yi fi ñi xam loolu wu bu njëkk téléphone amu woon auto amu woon yu bari amu woon bu dara daan xew man sama papa Abdou Kero rek ñi ngi ànd mi may nettali sëñ babakar Si leen koy tagge ci tool biñ leen bu fekke ni dañ daan yor fas bu ñu dawalee ba ex ci ben tool daal di daal di daal ñu ni diw te dik dekk diw gañu daal di rëppataat wutaat beneen tool noonu lañu tàggee ba tool yi jeex wala bu dekk yi jeex fas bi nag rëpputal biñ ko rëpputal ak ni mer bi gaañoo fas bi dañ ko rëpputal mu ñëw ñu yeewi ko rek fas bi dok dee ñu ne nak yow kay ndax yow lañu wara a nak bi ñu ñu dëjale ko man nak bi may diglu xis sa boobu bi ñu fas bi moy dem di yëgle ji dëj bi laa ñu nak de tay bu de ndax comme dëj am na rek nag moom am na problème léegi loolu lan ma ko waral mooy maire bi ak eh, eh, sindax yi bi ñu ko waxee xeex bi bu ñu ko arrêté woon rek mu jeex loolu moom mooy ay du yem ci bopp borom fii ñu toll ci senegal fii nii nga xamante ni fitna yu bari yi am na fi ku ne xam na loolu boo xoolee date yi ñuy jàpp mu nekk ay date fitna bari na fitna bi mënoo koo canaliser fenn dooni ci ñii la dooni ci ñii la parce que maandu dafa baax dooni ki ki ki ñuy wax lii la dooni kii def lii la ak lu mën am yàlla moo ko xam wala alam waaye li wérti wóor mooy fitna la tamit ci suñu réew bu ñu sañoon du am bu ñu sañoon kii ni am na ki wax ni dañ naa def lii du wax bu ñu sañoon it bu fekkee def gi am na ki def du def kon ala xaal yàlla mi xam loolu bokk ci fitna te fitna bani Israayil nee na fitna bi fi njëkk am lu bari dee ci ñu ngi bàyyeekoo ci jigéen te loolu dèjà répété wu na fii ci suñu réew. barki démb ndeysaan benn benn xale bi doon bi mujjee gaañu ci le 16 bi xale boobu mi ngi nekkoon xale boo xam ne cinq première mus koo génn ci am njàngam yàlla dogal mu ñàkk mu wéy juróom ñàkk ko. moo tax keroog papaam xaw naa tuur ay rangoon bu baax a baax moo tax Daaru Samb ren thème thème bi ngeen jël nii dafa nekk thème boo xamante ni dafa dafa dafa dafa laal jamono وخامني كي كي بين من دفي كي خامن دني من مم موج مم منك سين برم سبحان وتعالى مم وجه كرم غو خامني كرم غو وفدق دو جن مك مك تجام يلا مكوا لا إلى في قريش لا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت من نيك بوب نك بفدق خامن دني مم موج نيك سكرتي موج نيك تجام بوب على كل حال جل بفدق ala kulli xaal mucc nga kon yàlla nañu yàlla dugal ci néegu jàmmam boobu su ko defee ñun ñëpp ñu bokk bàyyi xel ni jàmm dañ koy employé ci côté yu bari moo tax ñu ne jàmm dañ par exemple tey bàyyi Jibi Gueye man na ni mankat damay woote jàmm buy woote jàmm mais am ko mu bokkal te jàmm mu nekkul ca kooka bu boobaa kooku dañ naan seytaane moo nekk ci moom yàlla na yàlla musal ci élément bu mel noonu am na ci àdduna nag am na am na tey ñoo xamante ni euh, mu xaw doo xam sax nan nga ko mën a waxee waaye da nga naan lenn jàmm nekkul ci ñoom bu leen nit nag bu demee ba jàmm jeex ci moom lenn rek moo des ci moom moom mooy seytaane seytaane nag mbir la moo xamante ni dafa ngémbu ngir yàqal doomu aadama waaye rawatina julit ba defé ñun ñëpp nañ ko daw yàlla neena na sen non la neena nak non bobu lo leen man ci daw ko nañ ko daw mo do suñ borom subhanahu wa taala ni wallahu yad'u ila dar salam dama leen a woo ngir ngeen wuy sama ci tolu jàmm gi yàlla ne walaw ann ahlul quran walaw ann ahlul quran amanu wa taqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard walakin kaddabu fa axasnaahum bi ma kaanu yaksibuun yàlla nee na walaw anna ahlul qura bu ñuy wax ahlul qura al qura bu ñu ko waxee ci arab bi maanaa bu ne madina maanaa ñun madina madina mooy dëkk boo xamante ni dafa nekk dëkk bu mag mais bu nee qura bi maanaa xariya xariya al xariya mooy dëkk boo xamante ni dëkk bu yemambaay la yàlla mu ne nag dëkku yu yemambaay yooyu bu fekkonte ni dañoo bokk àndandoo dund jàmm maanaam nekk ci jàmm bokk gëm seen borom wala ñu bokk benn gëm-gëm bu ñu gëm jëmale ci seen borom. dana mooy ñu ànd nekk ci jàmm boo demee fële ca madinatul munawara boo wala makkatul mukarama da xool ni makka.

Lola ak tay boko xolé xoolee na loolu na gis kaaba gi fi ne boo toogee nga gis ah, di wër kaaba gi labbayk allahumma laka labbayk bo wër nga gis ni orum bi di fessé ak nit nga xam ne fii li yalla waxon ni walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fataha alayhim baraka lolu wa yalla ko suñu borom confirmer Makka nak daru sambu ak ak fu man di doon bu ñu bokkee ànd nekk benn yàlla nee na ma wàcceel leen barke en tout cas objectif bi na nekk benn te loolu ndaw ñi wane nañ ko la moo tax ndaw ñi wane ko mooy lii lii ñu lii ñu def seen suwar mooy tey ñu jël jàmm waxtaane ci kon nit ki jullit bi lu mu mën a am rek nga xam ni jàmm moo ko mën a may loolu ndax jàmm lu mu fekkiwul rek temps du ko may fii ne tey Daaru Sàmb bu ñu nekkuloon tey ci jàmm mënuñoo bokkandoo añandoo ci oromu dëkk bi nii bu fekkonte ni tey que euh, ñoom Mouhamed Sow dañuy dañuy moytu que ñoom Khadim Samb wala que ñoom Khadim Samb du moytu que ñoom Mangor du ñu mën a añandoo ci urne bi. moo tax loolu jàmm la yàlla ni nag li fi yëg loolu mu ngi am nee na yéen a ngi nekk ci tawféex yéen a ngi nekk ci jàmm nee dinaa leen wàcceel barke na ngeen ko séenu walakin kaddabu am na ñoo xamante ni lii wàddi nañ ko am na ñoo xamante ni jàmm jàpp nañ ni dëkk. du ja du caagine euh, jàmm moo ko mën a doxal waaye ku ne say pexey bopp boo ko defee dëkk bi mën naa yokk am na ñoo xamante ni loolu gëm nañ ni mën naa nekk ci dëkk waaye dëkk ku nekk say pexey bopp dugg sa bopp liggéenti sa bopp loolu mënta rek la dëkk sama borom subhanahu wa taala wax loo yonent yàlla Muhammad ci xadis ñu jëlee ko ci ku ñu wax abi umamata radiallahu anhu mu ne ana nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida kaanat laylatu nisfi min chaabani يحبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع على اهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا إلى الكافر والمصحن والمصحنة كل لي إذا ما أمن ما لوخون دمني لا جم بنتي بنتي وات أمن نيو خمنتني جم دخل تسين دقت لولي على ما قدر أمن تاي سليمان نينغ أكمل سوبي ولا سليمان نينغ Mouhamed Sow léeg-léeg seytaane day dugg seen diggante noonoo am te jamono ñu ngi commencé ci ñu bokk am réew bokk lu ñu dëkk bokk lu ñu bokk bokk lu ñu gëm dañoo wax ni li ñu mi li ñu bokk nañ ko bokk waaye li ñu bokk bu ko kenn bokk te li ñu bokk mooy lislaam bi ak àq dëkk bi ak taxawaayu dëkk bi ak lu yëkkati dëkk bi bu fekkente ni loolu amul rek jàmm amul parce que doo gisee tey fii ci senegal xeex bi bari coow li bari ku nekk jàppal fii jàppal fii jàppal fii kii dañ koo war a def lii kii dañ ko war a def lii tëj bi fii wala dañ koo war a téye lii wala moo def lii wala moo deful lii lépp rek lenn moo ko waral mooy li ñëpp bokk daa am ñoo xamante dañ koo bëgg a jël bokk ko bu fekkente ni Baba Ndaw mi nga dafa nek ci parti pouvoir ni mako ko waxe dama joxe exemple la bu bu fekkente ne daaw sàmb dafa wara dafa wara intérêt yoon bi dafa wara ñew mom lañu tek ci mom nangam mu bëgg jël lolu ak moo wala mu jël bëgg jël bu dee 50 millions la mom 40 yi la mëna def té dix li ñu ki pare pour bok ko nit ñi duñ mëna and ak yow ci jamm lolu mom nak mom moy mooy ay nit moo tax yéen bi bu ñu demee ba nit ñaari nit dëngoo bu fekkee ne ni ñaari nit dëngoo nañ ñaari ñooñu dey donte ñett lañ wala donte ñaar lañ na leen leer ne yéen yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na am na genn guddi ci ci nisfu Shaaban nee na yàlla am na lu mu yebal ci kaw suuf nee na loolu muy yónni de day jéggalul sama borom waa suuf yépp nee na dina jéggalul yàlla waa suuf ñépp ñu jéggal leen Bam dess des ki weddi yalla yéefar bi ak ñaar ñi nga xam ne dañoo noonoo na ñëpp joxante loxo ci baax ku nekk ni sa morom balma ku nekk ni dëndal ne ko balma ku nekk rek ki nga dëndal dañ koy jox loxo ni ko wax wax <laughs> oke. Ini lii moom mooy lii mooy alaamatu salaam lii mooy mandargaw jàmm dañoo amoon suñu benn góor ñu koy wax Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck Thiénaba moo nekkoon xalifa bi génn àdduna daf daan wax ni bu ci cérémonie comme rek bu ba di déglu Cheikh ba buñ ko joxee micro bi rek bu jëlee micro bi daan asalaamaaleykum baat boobu lay wax baat bi ñëpp ni baas bi ñëpp ni wa aleykum salaam wa rahmatullah mu daal ni ñu tàllal loxo ni ñaan leen mu ni parce que man mënuma defati ginnaaw li ma leen wax mënuma def mënatuma fi wax lu ëpp lool yàlla na yàlla def ci yéen jàmm loolu la wax maanaam asalaamaaleykum yàlla na yàlla def ci yéen jàmm yéen it ngeen ni ko bàyyi cheikh yow it yal na yàlla def ci yéen jàmm yal na yàlla def ci yow jàmm waa ko am jàmm ñàkkatoo dara xanaa xamoon ñun suñu toogaay bi yëpp jàmm ko waral gis nga fi ne tey gis nga euh, Baba Ndaw mii buñ ko woon léegi kër Demba Anta Gueye ni ko am na lu fa lu fa xew sa ginnaaw léegi bu jàmm ñàkkee am rek Baba day jug léegi ngeen gis mu dem ba Bada xoll mi buñ ko woon léegi ni ko kër xaar ji am na lu fa xew lu mu jàmm léegi mu jug dem kon suñu toogaay bi yëpp jàmm moo ko waral kon bi mana li li naan wa daru bu ne match la dugal ngeen bi parce que tan bi ngeen jël moy tan suñu serigne bo xamanteni ni dafa ñëwoon yalla jox ko mission parce que tamit serigne bu nek ak mission bi la yalla raal serigne Cheikh Mati Lay yàlla na do li yermande ci mom serigne Cheikh bi mu ñewé mom dani xoluma murit xoluma khadim xoluma laayam xoluma xoluma dara lima bëgg rek moy julit ñëpp bokk ànd nek ci dem xaqal lool mo am tay ji ni mo demee ci almeer yi mënoo xàmmee almeeru mourid wala almeeru tijaan mënoo koo xàmmee de mais lén rek lañu yàlla bolé te bañ ko yàlla bolé ba légui ni duñ ko tàqale ko ya yon nas itaqu rabbukum allazi xalaqakum min nafsin waxida yàlla nee na wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا كون يلا باي ويري يلا نانا به والارحام سوت نك داني تساءلون به والارحام كون بوك بي اك اند جي نيت بي سوني بروم داني كاي لاج على كل حال دان تي باي خل بو باخا با موتاخ سيرين شيخ يلا يلا دوم تي موم يرمالي وانا لغي ني كليفه بو نيك اك سميشن تاي جي ني مام سيرين منتخا يلا يلا دولي ويربي te guddal fan bi mu ñëwee lépp loo xamante ni yoonu murit laajoon na ko ci ak taalibe lépp loo xamante ni yoonu murit laajoon na ko ci dolle ak yoonu murit lu ñu war a mën a boole am na ci biir yoonu murit lépp loo xamante ni bu ko gisee jàpp ni mën na ciy jur jal-jal du ci xool nasiha du ci xool dara du ci xool kersa day jug direct pour dindi loolu moom moo koy doxal boppam gis ngeen ko ba tàyyi fii mu at du jël engagement ci ay nit ni taalibe Serigne Touba du doxee nii addul ci boppam pour pour pour changer loolu loolu moom mooy doxinu jàmm parce que l'islam moom lu ci bokkul rek bokku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni anna rasulullahi wala boog abi abi ayubul ansar mu ni anna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam laa yaxillu li muslimin an yajhara aqaahu fawqa salaasa ayaamin yaltaqiyaani fa yuxridu hada bi wajhi wa hada bi wajhihi bi saaliwu di jóge ci daaru pour dem bu nuyoonteeg moom ñoom ñaar ki ci ëppale rek ki njëkk a jub nee na bu yowmal kooku mooy njëkk dugg àjjana. moo tax saxaaba yi bi mu wàccee dafa ñaari saxaaba yoo xamante ni seen diggante dafa xawoon a ñagas bi ko yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxee ñoom ñaar ku ne da doon daw sa morom parce que kenn ki day bañ njëkk ñëw nuyu moromam njëkk koo texe. mu ngi faatoo mu ni yërmande njëkk a texe ji ci yonent bu wax man yéene naa ko sa waay kon naa xaar sa waay ñëw <laughs> wala yàlla ni muhammadu rasulullah walladina hum asidaw ala waaye ruhamahu baynahum hmm. wa yubsiruuna ala anfusihim walaw kaana ñoom dañoo bëggante woon ci seen biir yonent nee na dañoo bëggante woon ba dañ tek tek ndawal dañ tek yap, yàpp comme ça goudi ni ñu tégal leen bolu ndawal nee amna ci sahaba yi ñuy lek ku nek yéene sa morom ben ndaw ben dog bi ne ci bir bol ku ko jot bu mako ko pousse ko Omar bu ko Omar jotee pousse bu ko ki jotee pousse ko ki ba ni ñi juggé ta ndawal gi kenn du ko laal parce que kenn bu ko lek baye sa morom amna ci jihaat jàppatuma nag ban jihad la mais amna ci jihad jo xamanteni ñetti saxaaba bokk nañu tëddandoo ngir man ñetti saxaaba bay bay bada yaa ngi dégg am na ci jaxat joo xamante ni ñetti saxaaba bokk nañoo tëddandoo ngir mba ngir man yow bi ñu daanoo ci biir jaxat ji daan tëdd ngir mat ñu indil leen lu dul benn pot ndox timale leen kenn ki tëdd na le kenn ki tëdd na le ca xurba kenn ki tëdd na le bi ñu demee bay bëgg a jox maam góor pot ndox bi maam góor dégg Souleymane ni ngi yuuxu naan alma maam góor daal ni ko dawal yóbbu dawal yóbbu Souleymane maam góor daw boo di ma ko indil man Souleymane jékki-jékki dégg xaadim sàmb taxu fa ne naan alma mu ne ko dawal yóbbu Souleymane dawal yóbbul xaadim xaadim ñu koy yóbbul ndox mi mu dem bay bëgg a naan dégg Ahmed Saw naan alma mu ne ko dawal jox Ahmed Saw ba muy dellu ci Ahmed Sow fekk na mu faatu muy ñëw ci kii di ñëw di ko jox Souleymane ñu ngi fekk mu faatu muy dem ca kee di ko jox fekk kee faatu ñoom ñett ñëpp ñu faatu kee naa la ci ndox mi ndax ku ne rek li nga war def ci sa biir nga yéene ko sa morom loolu moom ah? ko yéene yéene sa morom loolu moom loolu moom loolu moom moo nekk jàmm yonent man nag gis nga fi mu nii su may waxtaan nii damay def sama suwaa pour taabal ji may waxtaanee muy féete jigéen ñi jigéen ñi dañoo dañoo tàmm yii di jamono yi muy góor maanaam dañuy taxaw ak yow di xool te aaya boo wax ñu àggale ko waaye bu dee bàggante bi nii damay bëgg sama diggante jigéen mooy bëgg muy muy kii <laughs> wala alhamdulilah ba yoon wi sax xew naa lii conférence yi may def yëpp nag man sama suwaa day nekk day day doon mu féete eh, eh, yaay góor yi ak àggale aaya rek lañ gën a mën de genre seex saw seex saw gi àggale aaya lañ gën a mën ci ci ci dem taw dafa am genn góor sëñ Ibrahima Seck yal na yàlla yokk yërmande sëñ Ibrahima Seck dafa wax naan sàmba saajo boo xam ne sàmba saajo mooy xeex bi Mouhamadou Ndak mujjee xeex Samba Sadio moom lañ tuddee tele bii ngeen ngeen ngeen di jàkkaarloo Samsu TV Samba Sadio benn xare bu métti la woon mais c'est suñu raadu sekk borom yaaram mag ñi fi nekk xam nañ ko dana la wax naan Samba Sadio bu dekk woon fital yu gudd yi góor ñi laa koy jox jigéen ñi laa koy jox maanaam fital yu gudd jigéen ñi laa koy <laughs> maa ngi jégg lu baax <laughs> waaw su ko defee Abu Hurayra daf ñu indil benn xadis mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee la taftaxu abwaabul janna yowmul isnayni wa yowmul xamiis yi fa yaxfiru fihima li kulli abdin laa yushriku billahi shay'an illa diglul mu ne ar rajulu kaanat baynahu wa bayna aqihi suxanaau da koy jërë bàyyi xel li may wax nii maanaam dafa am ci jamono te dafa bari dogoo bi dafa bari nañu déglu ba xam dogoo ak sa moroomu jullit lan moo ci nekk faatuwaale ko nga dogoo ak sa moroomu jullit ñetti fan faatuwaale ko wóorul nga dogoo ak sa borom kër ñetti fan sa borom kër mere la faatuwaale ko wóorul nga dogoo ak sa wayjur wu jigéen wala sa wayjur wu góor ñetti fan amoo ci moom benn wax bu neex sa jur mere la faatuwaale ko wóoru kon nañu déglu lii yonentu nee na yàlla day ubbi taftaxu abwaabu janna wa yowmul isnaani wa yowmul xamis nee na àjjana dama koy ubbi bisub altine ak bisub alxamis june damay ubbi àjjana di jéggal nit ñi ngir ñaari bis yi ay bis yonentu yàlla Muhammad la de mu ni bépp jaam boo xamante ni mosoo bokkaale yàlla rek ci bir bis yoy nga xamanteni sama borom day def gracier ko xam gracier moy ñu dem ba vingt euh, nu mu tudd 31 décembre président bi ni damay dindi ay nit safara jéggal leen. Modou ndjay ni bi bay Ali yaakaar naa su ma juumul Baye Ali la euh, ci na ko Papa Assane nekk le benn bés. di dem ci Serigne Fallou Mbacke mu nek délégation daru sambu Serigne Fallou Mbacke di leen daral ñu waxtaan ak sama maam Mot Ndiaye ñu ci biir délégation ba la bokkoon keroog ba ñu fa jugee bi ñu ñëwee bay àll ñun comme dañ fee nekkoon ñoo xam ne dañ ñoo dalaloon ndaw sama maam bi mu ñëwee bay àll dégg naa dafa yokk ay toolam dafa dafa jël lim ko li mu ko joxoon ci suuf yokk loola ngir mbégteeg tiijaan bi ñu àndal ci seen biir yoon woowu loolu moom moo loolu moom moo nekk ak defar mbooloo mi ñii ay tiijaan lañ ñii ay murit la mais li ñu boole dafa ëpp lool li ñu boole moom mooy lan mooy diinul islam yi yal nañ ci yàlla gën a gën a gën a saxal kon jàmm jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mooy li nga xamante ni bu fekkente ni bëggante nañ suñu biir ala kulli xaal ñooñu ñooy ñi nga xam dinaa leen teg ci min bari leeri keroog yawmal qiyaama ay min bari leer waaye yemu ci yonent dani la yadxulu janna illa man amana waaw kenn du dugg àjjana lu dul ni da gëm fi ne coow li bari bari bari xaaju ngëm rek bu nekkee ci yow àjjana amu fa kon yàlla nañu yàlla defal ngëm te moo wax ni walan tu'minu nit ki du gëm yàlla mukk xataa taxaabu lu dul ni dañoo jël suñu jëmm yi bëggante ci suñu xol kon bëggante dafa bokk ci alaama al imaniya yal nañ ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal jël nañ ci ali ibn hasan ibn husayn mu wax ni yunaadi al munaadi wala boog ida jamaa allahu al awalina wal axirin te xadis bi ci lay tëjee waxtaan yonent ne bu yàlla boolee jaamam yu njëkk yi ak jaamam yu mujj ah loolu mooy bis bee ci yàlla woowee na ko nëw ne bis bu raglu la ata amrullahi fala tastaajilu yàlla waxee na ko nu ne baat bii ñuy wax ñii di ko waxtaanee tey nga xam ne xale yi daaw sàmm ñoo ko def soir keroog yonti yàlla Muhammad keroog yonti yàlla Muhammad bi ko sama borom bi réyaan loo mu wuy ji yàlla subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid haram ila masjid aqsa keroog bi yonenti yàlla Muhammad demee ba ci suñu suñu borom baat bii la ko dalalee asalaamu alayka ayuhan nabiyu ñu ko jàmm yàlla na nekk ci yow yow yonent bi yàlla bi yàlla mi ñu bind nag même buy ñëw ci jaamam di di jëflanteeg moom sax baat boobu la koy njëkk a jox kon xanaa ñun jaam bi simple yi ñu war a koo mën a jël euh, euh, yéenante ko suñu biir moo tax yàlla bëgg ñu bañ koo fàtte ba mu defal ñu ko farata ci suñu julli kii julli bàyyi salaamaaleykum la lan julli gi lan la ban atte moo ci am kan moo mën a dimbal ci lool dimbali ci loolu maanaam ki nga xamante ni day julli ba julli gi jeex comme ni imam bi defoon imam bi maa ngi jégalu nag de comme ni imam bi defoon imam bi dafa gàtt gàtt gàtt maa ngi jégalu de am nañu gàtt ñoo xam ne maa maa ngi ñoo mais imam bi dafa gàtt gàtt gàtt ba gàtt gi foogu tënk rek weesu na waaw yàlla la mbindeefu yàlla la yàlla mooy annaas muxtalifun waa gàtt na di dégg sama ne kii gàtt na di ah am naa su waxtalifoon yàlla neen dama bind berele comme man ni ma gàttee rek. ah. waaw. soo ma gënee yàlla bindul yemale mu soo ma gënee gàtt ma gën nga gën maa njool ma gën laa gàtt rek nga nangu rek day nangu xam nga xam nga nit ku nekk war naa am foo jafandu. da ngay jafandu ci nee na waa ji ku ku ki da koy ne koy da ngaa da ngaa gàtt ma ne ko soo ma gënee gàtt it soo ma gënee njool it ma gën laa gàtt rek. ku nekk bañ a xaj xeb sa bi nga moom nga téye waaye maam julli laa bëgg a xam maanaam bat bi ci mujj muy asalaamaaleykum boobu nga xamante ni yàlla moom la daliloon yéen teel wax ne ban parti la taxawee ci parti julli imaam bi bi muy julli de fekk. gàttaay bi laa wax de maanaam moom gàttaay bi moo déranger jabar ji dafa am jabar mais jabar ji da koo yab te yab gi ko jabar ji yëpp mooy loolu am na ñoo xam ne seen jabar yi da leen di yab ak yab léegi nag moom jabar ji ko yëpp yëpp ci gàttaay bi la ko maanaam bu toogee moom buy reer buy añ buy waxtaan ak jour rek mu ngi naan ko nday yaa gàtt yaa gàtt yaa gàtt rek ko dëkk wax nee na mu dëdd guddi ak soxna si guddi gi yëpp soxna si di ko këmax rek naan ko yaa gàtt yaa gàtt léegi loolu nekk ci xel ni sonal ko lool mu xëy ñëw ci jàkk ji war a jiite fajar muy ñëw di julli bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin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 ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لسان julli ne ba julli gi àgg mu jàng xonóot fajar bi war a toog taaya ba taaya jeex mu war a wax asalaamaaleykum mais bi mu war a wax asalaamaaleykum xel mi mel ni dañ ko indil nogay ak problème mu ci guddeem bi ndax yaa gàtt ci yaa gàtt ci dellu si waat ci xel mu toog ba wala asalaamaaleykum daay wala asalaam mu ni wax leen ci nogay duma mor moom parce loolu moo nekk ci xel bi moo ñëwaat ci xel léegi baat boobu mu war a utiliser nga xam ne moom la yent bi moom la ko sama borom dalale wax baat boobu ban ban ban mawxif la am ci julli parce que baat boobu farata boo jullee bu julli gi àgg te waxu asalaamaaleykum julli ga wérul parce que ci farata yi la bokk julli dafa am ay farata am sunna mu akkat am sunna taxfiif sunna mu akkat mooy waral sujjóot moom la borom xam-xam yi tënkee si bu demee ba toll ci asalaamaaleykum waxagul asalaamaaleykum ma jug dem man sama julli baaxul bu fekkee ni tamit imaam julli na toogul asalaamaaleykum julleem baaxul bu fekkente ni imaam wax na asalaamaaleykum man ma lànk bañ wax asalaamaaleykum sama julli baaxul parce que imaam mën na maa yenul sunna mais mënu maa yenul farata moo tax imaam bi bi mu ne wax leen ci nagoy du ma moromoo maanaam julli gi yàq la mën a def mais moo du la baax parce que it baat bi mu utilisé du baat arab te asalaamaaleykum borom xam-xam yi nee na mënuñu ko wax ci beneen baat bu dul baatu asalaamaaleykum baat boobu di jàmm yo yonentu suñu borom dani ko na ko jullit ñi di wax juróomi yoon ci bis bi à de quoi pour lan la maam yonentu bi bu demee mu ni nanga nga Ousseynou Sow na nga fexe ba baat bii di ni di jàmm yàlla na ko yàlla def ci yéen génne noonu naa la ko ci sa làmmiñ bi bés bu nekk juróomi yoon pour lan la pour lan la lu ci yàlla na moom waaw waaw sama maam mu ne ñii wax salaamaaleykum sama maam nee wax naan salaamu aleykum loolu de baaxul sax ak a moo nag jigéen ñi ak ñu ko tàmm salaamaaleykum ñoom bu ñuy julli sax nan la ñuy def danga gis jigéen koo xamante jigéen koo xam day julli eh, kii am eh, ah seex de baal seex nga wax ah ah café avec moom xew na gitu yaakaar na soxna Botor soxna Botor bu commencé xaw man yow dimbali nga ma ndax yu xew yi laa naroon wax waaw kay nee soxna Botor bu commencé man xam nga lu ma wax café avec laa naroon wax. ba ñu ma yow jamono la di nuyu bu baax ñoo waaw dinañ dalal sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar mooy ñëw noonu. ربي بما يزرع أذان فجأة بجاي عبد من لا شريك له وجعليا يوما رجاتيا ملايا محمد شلاوات الله بأبد عليه في اسمه إلى إلهي عما مواهبه لجملة الخلق ما يختار من بنى نجد جلالا وهما وكرمين تكريمات وكل من لها بريئة رحمن وابن جميع خلق رحمته عن شر من قرآن فرأى ظلمة عن كل ما سدات ولترني خطايا من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جل أبناء قرب من دار بجاء أدليما لله قد نجا موت ما قد قلب من دار بجاء أدليما لله قد نجا dëgg yàlla bu tëddee Mouhamed ci dalal boobu wala fi dañ naan autorail moom bu jubee gare day corne waaw ah, jaar na njabootu Baye Serigne Bissou ñëw ci jotaay bi nga dalalee leen noonu ndax ñoom loolu la ñuy loolu la ñuy dund suñ waxtaan ñu ngi lay dalal di wax marhaban ahlan wa bokk na ci li ñu gënoon a tax a xaw a téyewaale temps bi tuuti sax di ko xaaraale parce que moom moo war a modérer suñu waxtaan. te bëgg ñu woon waxtaan tamit ba jeexal te moom li ñu doon wax amu ci lenn lu mu ci dégg parce que comme moom moo waral modéré waxtaan bi dina ci am lu mu ci soxla euh, beneen bi ci des mooy ñu koy ci cëram ci suñu diggante ak xaritoo bi ci nekk mu nekk sama wëllale nekk sama sëriñ nekk sama lépp di sama mag itam nekk borom yërmande fan yi conférence bi ñu doon def fële ca euh, kii nu mu tudd sax ndaam woon naa yéene teew ci lool waaye ngànt téye ma sëñ Maxtaar ñu ngi lay nuyu bu baax a ngi ko waxee am na suñu xaritu bokk tam sëriñ Abdoulaye Thioub nekk macha allah takkat yéen teel Mouhamed waaye jàngat xasida waaye ànd itam suñu frère nekk suñu xarit dëkkandoo te lépp rafet muy Ousseynou Diagne di doomu musulmé taalibe nekk sama xarit tam heure bii daaw yéen fi gisoon rakkam muy Ibrahima Ousseynou mii mooy magam moom nag li fi nekk da dul bari souvent day génn ci dem ak moo moom ñu koy dalal bu baax a baax na ñàkkul ni euh, papaam moo ko yónni préfet aussi ñu ngi lay dalal ci sa cër ci suñu diggante waaye ci sa cër ndax arab bi dañuy wax inna rasula bi xadri mursal ndaw lu nekk ku ko yónni nga koy jàppee te monsieur le maire mooy euh, kilifa commune bi bu la yónnee tam kon dañuy jàpp ne monsieur le maire rek moo toog fii marhaban ahlan wa sahlan ñu tolloon ci suñu dernier waxtaan sëñ sëñ Mokhtar yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi jox léegi jigéen ñi seen misaal ci julli ma ne bu fekkente ni soxna Butóor commencé na ak yeneen am na yeneen man yu may fekk ci télé bi yu dul soxna Butóor damaa fàtte tur yi infidèle am na ci ak yeneen ak yeneen bari nañ de suñu yëf te jotee jigéen ñu sàggan ñi da ngay gis ni maam jigéen ñi baat bi ngeen wax léegi nga xam ne ñoom du ñu wax asalaamaaleykum de asalaamaaleykum la ñuy wax. dëgg la salaam. du noonu da nga naan asalaamaaleykum. waaye di julli imam maam Njaga Samb di la jiite nga toog ci penc mi wala nga toog ci biir kër gi di ànd moom boo déggee imam taaya ba war a ba yow nag xam nga looy waxee salaam asalaamaaleykum. seet jigéen ñi nii la ñuy waxee asalaamaaleykum. salaamaaleykum kon kon maanaam kon bu ñu ko tegee salaamaaleykum rek jug dem lool loolu loolu garaaw la su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax julli nee nañ euh, boo ko joxee xàq bi mu moom daf lay ñaanal waaye boo ko joxul xàq bi mu moom boo paree day lem wat mel ni ak bassin ñu derwit ci kaw ne leen ñu ma toroxale yàlla na ma ko yàlla yàlla na ko yàlla toroxale kon julli teewlu ko teewlu ko ni ñuy wax naan ah, ak tumaaniya tumaaniya loolu dafa bokk ci ci ci ci farata julli euh, yonent bi salaa salaam ni euh, mu ni euh, iza jamaa allahu al awwalina wal axirin bu yàlla boolee nit ñu njëkk ñi ak nit ñu mujj ñi keroog bis penc nee na yunaadi munaadi day am doo xam day ñëw taxaw di woote buy wax lan lay wax ay na jiiraan fillah ay na jiiraanillah fi daarihi ana ñu dëkkoon ak yàlla ci këram yi mooy néegu yàlla jullikat yi ak ñi xam dañoo dëkkoon te dëkk ji yàlla rek tax waa kër Demba waa Bangaaj waa kër Demba Anta waa waa waa Demba ah, waa kër Abdou Dieye ak waa Daaru Sàmm waa kër Mbaye Gueye ñoom ci biir mu ni fa yaqumu unuqun min annaasi yuriduna aljanna fa taqulu almalaika ayna turiduna ana ngeen lan ngeen bëgg waa Bangaaj ñoo taxaw waa Daaru Sàmm waa Kër Mbay Gay ñëpp bi yàlla ne ñan ñoo nekkoon dëkkandoo yàlla ñan ñoo nekkoon ñu bëggante yàlla tax nee na waa Bangaaj dañuy jóg taxaw waa Daaru Sàmm dañuy jóg taxaw waa Kër Dembaante dañuy jóg taxaw ñu ni nag ñu ñii ñun ñooy ñi nga xamante ni dañoo bëggante woon te yàlla tax nuriidul na dañoo bëgg àjjana malayka yi laaj leen ak qabla al xisaab ndax da ngeen a bëgg àjjana balaa ñu leen régler loolu am na am na ñoo xam ne duñ leen réglé te yàlla de dinañ leen dugal àjjana fa na naam ñu ni waaw dañu bëgg àjjana te duñ ñu dugal duñ duñ ñu xisaab fa taqulu malayka man antum yéenay ñan ah yéenay ñan kon yow mën a doxoo ku la unasir imaamu imaamu banaaj ni ñun ñun man la waa imaam man la imaam banaaj imaam daaru sàmb ni man la waa man la imaam daaru sàmb imaam kër dembante ni man la imaam kër dembante et cetera kër dem kër demb nu mu tudd sax kër mbay gay et cetera fa yaquluuna nahnu jiraanullahi fi amrihi ñun ñooy ñi nga xamante ni ay dëkkandoo lañu waaye ñu nekk ñoo xamante nii dañoo saxal yàlla ci kaw suuf wa ma kaana jiwaarukum ñu ni yéen lan moo nekkoon seen preuve ni yéen dëkkandoo woon ngeen mais ñu bëggante woon ngeen te yàlla rek tax lan moo lan lan moo dëgg dëggal seen li ngeen di wax nii ba tax ngeen bëgg dugg àjjana te duñ leen réglé fa yaquluuna ñoom ñëpp ñu naa jug taxaw kunna natahaaba fillah dañu nekkoon ñoo xam ne dañoo bëggante woon te yàlla rek tax wa kunna natabaadilu fillah wa kunna natazaawaru fillah dañ daan seetante dañ daan échangeante dañ daan sompante dañ daan jëflante dañ lebalante ak di demalante comme nii tey euh, zimbelage bi nga xamante ni bi maanaam euh, kër Demba ant def nañ ko ak ak ak Daaru Sàmm ba ngaaj sàmm dëkkee noonu ak Daaru Samb kër Mbay Gay dëkkee noonu ak Daaru Samb kër Malick Dieng ni ki noonu ndam ndaam ak yeneen dëkk yi fi nekk yëpp loolu moom mooy dëkkandoo gi nga xamante ni yonent nee na nit ñi mën nañ cee mën nañ cee sukkandiku ba am ci ngërëmal seen borom keroog yomal xiyam te sama borom du leen àtte sax ci di leen di leen di leen di leen xisaab su ko defee ci foofu lañuy ñuy wàccee suñu kàddu ñuy gën a xamal nit ñi ni leen yàlla bu ñu bu ñu bu ñu tënkee ci ñu sax ci di ko jàmm du njëriñ loo xamante ni jaamu ga ñun ñoo koy def ngir am ngir moom mu am ko ci ñun bind gim ñu bind jëriñu ko dara dafa nekk loo xamante ni lu dagan la ci moom boo demee ci benn téere bu ñu wax Ibnu Asir te te te ca ndorteel la da ci indi lu yaatu ci wàllu leeral ci côté yu jëm noonu mais ala kulli xaal ñu xam ni yàlla bind gim ñu bind du lu ko war waaye nag lu lu dagan nag sama borom subhanahu wa taala def kon bu ñu fi indee ci kaw suuf ngir ñu bëggante ngir ñu jàmm yàlla lu jaadu la pour ñu def ko ñu bàyyi xel tamit ni yonentu nee na comme ni ma ko waxee léegi ci soppante bépp nit boo xamante ni danga ngaa dogoo ak sa mboroomu jullit lu passé ñetti fan lu passé ñetti fan nee na keroog bis pénc ñaar ñooñu duñu dajeeg yërmande yàlla wala wax naa ko wax naa leen ko nag hésité naa ci ndeen ci bàyyi xel dinaa leen ci nettali benn mu xaddasa boo xamante ni am na te ki ki ki ki mission boobu man moo ma ko te kilifa la kilifa la kilifa goo xamante ni bi mu génnee àdduna léegi war naa mat fukki at ak juróom benn benn jaamu yàlla boo xamante ni ndaw la man ndaw ñi am na ñu bëgg yàlla yoo xam ne ni yàllaa leen gënal lu ñu am parce que àdduna tam la ne lu dul sama borom fi lu waay wut lu dul yàlla amuloo ñàkk nga ko ndaw lu bëgg yàlla moo ma nettali damay wax nii moo ma nettali ni ma dama gént kilifa diw kilifa googu nag sëriñ bu mag la ci réew am na ñaari taalibeem yoo xamante ne ñaari taalibeem yu siiw lañu tamit ci réew mi man ma ñaari ñooñu de dama gént seen sëriñ bi nga xamante ñoom ñaar ñëpp Sénégal xam nañ ni bëgg na leen bëgg nañ leen moom fi ne tey buñ ne fi ne tey buñ ne am na bëgguma tudd tur mais buñ ne sëñ Salim am na taalibeem yu ne ci àdduna bi ñu siiw ñoo xam ne ñëpp xam nañ ni sëñ rek mooy seen sëriñ te dañ koo bëgg Cheikh Amar ci la bokk ak ñeneen ñu mel ni ñoom sëñ Béthio waaw ak ñun ñii. jërëjëf sëñ Maxtaar ak ñun ñii ndax am na saw mi du nangu lool. waaye da moo tax bi may wax utiliser sëñ Maxtaar jërëjëf. sama maam nag moom daal laabiral laabir ba nga xam ne li daloon saxaaba yi da ko dal waaye bëgg moom eh, moo tax ma ne ñu siiw ñi ah, moo boobu may utiliser ñu siiw ñi mm-hmm. waaye sëñ Maxtaar gis nga jërëjëf gis nga boo nee sëñ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 ba aljana daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee